Assalamu waa Yoff ñun la waa association Help the Street Children aider les enfants de la rue mu nekk Ben association boo xamante les ay jeunes sénégalais ñoo ko siège bi mu ngi nekk cité Diamalaye 2 ñu créé ko depuis 2012 association boo xamante ne dafa jóg pour jàppale taalibe yi jàppale xale yoo xamante ne tamit dañoo fàq seen kër yi di dëkk ci mbedd bi ñu leen di woy fàqman association bi nag dafay jàppale les yi si Walum santé si Walum éducation si une formation professionnelle si la survie et bien-être ak si walum réinsertion sociale Nous avons un projet bu santé pour les enfants talibés nous avons démarré depuis 2015 ci commune Yoff bi di ko appliqué tamit ci parcelles, si Guédiawaye si Biscuiterie di ñaari tali mu nek projet boo da fay da fay tax ñu yondi ay médecins ay pharmaciens di dem ci daara consulter gratuitement di les may ay garab di lay sensibiliser tamit l'hygiène, hygiène ak santé.

ci loolu noonu la ñuy la ñuy liggéey ci la ñuy waar saa su ne dañuy liggéey itam ci daara yi maanaam ci di taxawu nongo daara yi ci seen wàllu wér yaram ci seen wàllu ci wàllu sensibilisation ak tamit seen nekk nu muy gënee euh, samedi bii nga xamante ni ci la ñu jëm muy le 24 novembre fii ci place Mamadou Diop bu Yoff dañ fay amal benn activité activité bi ni muy demee benn projection film lay doon dina amaale benn débat mbokk yi nga xamante ni ñoo jóge biir Yoff muy kilifa ak citoyen yi ñëpp ñëw daal di échanger ak ñun joxe seen ay point de vue joxe seen ay critiques seen ay suggestions ak seen i jàppale itam ci euh, liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def euh, fii nii ci yof mooy samedi bii di ñëw di ci xaar ñëpp di ci déglu di ci euh, yàkkamti itam dalal ñëpp waa yof na ñëpp ñëw ñu ñu daal di partage affaire bi ak yéen ndax bu ngeen ñu jàppalee ñu jàppalee taalibe yi day gën a jëm rek ca kanam help the street children aider les enfants de la rue samedi prochain là, place Mamadou Diop fii ci Yoff euh, c'est à partir de 19h Nous ñëpp ñëw doxantu ñu passé événement bi ensemble di leen xaar yéen ñëpp jërë ngeen jëf